alors on parle de dialogue Sonko Macky. Hmm. gëm nga ko. non gëmuma ko gëmuma ko mais xam nga xam nga nit comme comme ni ñu koy waxee rek yow tey mën naa toog sama kër hmm. euh, soxla la. Hmm. su ma la soxlaa euh, yónni nit. nit bu ñëwee foofu waxante ak yow di nga am peut-être courtoisie déglu ko. déglu mën nga a jël benn engagement mais kooku su génnee non gisante naa ak Sonko lii ak lii parce que nit ki boo waxee moom dina la tontu. boo génnee ne non discuté naa ak lii ak lii ñun Ousmane Sonko xam nañu ko c'est que Ousmane Sonko c'est-à-dire mu taxawoon ne man kenn du ma teg pistolet ci tàmp ne ma da ngay dialoguer par force te man gëm naa Ousmane Sonko il est très sensé xam naa ni Macky Sall su ko garanti condition yu leer nañ pour war a mën a dialogue dañuy dialogue xam nga lan moo tax. Hmm. c'est-à-dire que loolu war ñu am complexe di ko wax man je di dis parce que mënoo di xeex pour jot nguur dix ans ñëw ba sa liggéey war a aboutir cest di dire que toll nga foo xamante ne yow kenn laal naa mewul incha allah di nga gagné parce que di nga gagné. Hmm. qui bi euh, euh, république bi. Mhm. est-ce que da ngay dem jot nguur gi wala yow da ngay top ñu def nguur gi jox ko ay transition mu mën jël lo xamantene porte ouverte la. à mm, toutes les dérives mais aussi man pourquoi je suis à l'aise ce dialogue bobu man ma wara a dialoguer pourquoi parce que ma nek en pole position parce que buñ organiser une élection man on candidat buñ organiser une élection au moins tiitaange pour dem ci élection yi. Mhm. donc kenn gënuñu prédisposé à dialoguer avec le pouvoir en place. Mhm donc buñ ko deful rek parce que dafa am yu fi jaar lo xamante dañu dem ba ñun di der di mais ma lay dégg sa ben laaj nga wax. Mm-hmm. ne bu pas xalé yi de leen kaso jar na dem ba mais c'est exact parce que parce que aussi nit def en avant il faut être responsable

nga bañ ko top ci xeex mais nga taxaw xol xool nooy ak mom ba téye nguur gi parce que moy lu ëpp solo. parce que 18 millions de Sénégalais ak ben Sénégalais bo xamante yalla dafa def mbiri si lo xam la nek té vraiment ñi ko wara japp jàppale si liggéey bi ñu bari ils sont tapis couchés lu mel sant la def je crois que il faut beaucoup de responsabilité et lucidité. bu hmm. laajee dialogue da nga wara dialogue. téye li ngay téye mais ñi ñun mënuñoo toog ak ñoom la preuve ñi dem ci dialogue bëpp dañu mujjé mujjee parce que gis nañu da ngay ñëw taxaw mu lay écraser dañu taxaw mu la prérogative amu fi man mako yoré nawlawul kenn te bi mu organiser ki mu soxla woon ñëpp xam nañ ni Ousmane Sonko la. Mhm. mais je crois que il devait faire preuve de bonne foi ñi muy génnee bañ a toog di ko def au compte génnee ñëpp ñëpp taxaw su boobaa nit ci bu ñu génnee si biir Ousmane Sonko génne si biir mun na apprécier par rapport dëkk fi mu toll par rapport situation bi ñu toll ak ñun suñu xeex bi ñuy xeex mu toll. parce que boo gisee ñëpp jóg naan non am na lu xew ànd Sonko ak kii pour décourager gars yi dañoo xam ne ñun relégué nañ leen ba pare c'est pour def ñu écran ñu xaw a complexe daw gis nga affaire égo amul fii. Sénégal moo nekk en jeu ak ay enjeux yu supérieur mhm. donc loolu dafa laaj vraiment responsabilité ak appréciation bu lucide pour mën xol yene décision ngay jël té man Ousmane Sonko su nekkoon ci biti gëm na ne dina taxaw même bu ci d'accord sax na jël temps réflexion ñu conseil ko alentour. puis il a il a le courage de ses idées. mais bien sûr parce que lépp lu mu d'accordul day tok mom wax ko. day mom wax ko bien sûr loolu moom sénégalais yi xamal nañ ko. donc euh, vraiment euh alors euh mais lolu jur na ay wax yu sew ci biir Pastef. Hmm ma Ousmane moo nekk ci biir ci kaso bi rek. mais bu génn non non vraiment il faut que les gens se. non c'est là xam ni ni ni en fait parfois xam bon yenn man je le mets dans le compte de l'émotion quoi. parce que hmm. xam parfois les gens sont émotifs et puis situation bi dafa xaw metti xam nga ñu bëri wuñu président Ousmane Sonko limay dund hmm. euh fi mu nek ñepp xam nañu du place am mook Bassirou Diomaye ak suñu rak yépp yi fa yi fa nekk donc parfois ni ci dañuy am ay réactions parfois même.

moo tax bu gisee ñuy génnee sax c'est pour débat bi sax won leen ne ñun lii ak lii mooy suñu intérêt ci débat bi li ci des on n'en occupe pas ku nekk parce xam nga rapport de force bi ñuy wax ci politique Pape du xeex kese mooy taxawaay posture mhm. parce que ku nekk da ngay yow da bëgg aspirer ci li nga gëm man bëgg la aspirer ci li ma gëm moo tax diversion di am ay contre di am mhm. pour nga topp leen di wax cest à na leen bàyyee loolu boo noppé sax sétane di nga gis ni yow après sa wax bi nga waxoon sax jaru ko finalement pourquoi hmm. parce que ça pas été décisif té amul ben impact mu impacté ñun li nga xamante mom moom dox hmm. moi je crois que on doit être beaucoup plus Euh, euh, voilà responsable waaw ci ci ci ci décision yi ñuy jël ak ni ñuy taxawaay yi nga war nañ ko am té war ñoo may fu nit di taxawee naan que am na ay pro Diomaye ay pro Sonko wëkk ay di jema a dugg suñu diggante di jax ak yoy parce que amu fi place quoi hmm, Diomaye toute sa vie ci dix ans yu mu def politique yëpp day xeex pour Ousmane Sonko nekk candidat Ousmane Sonko bu dellusee ba xam ne moom dañ ko bëgg pour des motifs euh, fallacieux bloqué ko. mu gis ni Diomaye bi c'est le meilleur profil mu jox ko lenge yi c'est-à-dire lépp li war ni ci mooy focus liggéeyal ko pour mbiri jëm kanam. Mhm. man man loolu laa ci gëm quoi bien dit ça alors le candidat Diomaye. <laughs> damay la wax benn anecdote mhm. jour bi euh, Ousmane waxee ne euh, nañ pare na Diomaye. feetet jour boobu dama jot ay appel gars yi tiit jaxasoo bala leen non parce que yéen da ngeen am seen méthode politique mais moom tamit. effectivement <laughs> il a il a intelligence. fi nga ko génnee sax c' était vraiment timing bi. c' était extraordinaire. parce que am na sax ay wax yu wax yu sew quoi même parfois da nga doon dégg dans nos non il faut que ñu jël ay responsabilités il faut ñu lii jour boobu la candidature jomaa bi génn c'est-à-dire

dafa am téye boo xamante ne bu ci nekkee kenn mënu ko yëngal mais fu mu waree wax rek il fait des choses sensées moo lay woon ne encore une fois média comme média ni sax du faux. Mhm. bu ñu jugee di si dem dañu war a dem pour liggéeyi mais war ñu dem juste pour wane wu wala pour am looy kii non. wala jaay sa bopp voilà donc Ousmane Sonko li mu li mu def jour boobu c'est impactant mais jomaay boobu d'ailleurs mooy problème bi actuellement parce que man je crois que il peut même pêcher au-delà de Sonko parce que am ñoo xamante ne ils disent que Sonko dafa radical les clients. les clivants hein. waaw même <laughs> même même même waa après da nga toog dégg ñu ne Diomaye dafa yow ñenn ñi euh, yenn côté da day gis ni ne ñoo man defoon naa lii defoon naa benn faux pas ak Ousmane Sonko parce que daa am lu ma tegoon te nekkul mais Roussa naa dellu moom mais comme que léegi Diomaye lañ teg mën naa am su ma dellee foofu dina yomb donc il est même mun na gën a sax polariser loo xamante ne. bëggoon na ñëw si Ousmane Sonko mais xamuñ woon fu ñuy jaar. donc c' est une candidature boo xamante ne elle vient à point euh, à point nommé te ki ko porté aussi. c' est boo nit la koo xamante ne mun nañ teg suñu loxo ci kaamil waat ne kii ku fiable la ku jub la ku juste la fekk li ngay xaar ci Ousmane Sonko mën nga ko fekk. mun nga ko ci Diomaye ci Diomaye. voilà et puis et euh, gars yi gars yi nee na parti bi kenn gënu ko cee liggéey. c' est ça aussi faut faut le dire c' est à dire que li mu yoroon ci ay responsabilités balaa moo nekk sax secrétaire général. Mm-hmm amna lu bëri lo xamantene mo do doon suppléer bu gisee fi ben turu bu kii rek day ñew suppléer té dafa réactif ci document documentation c'est-à-dire que bu ñu wax ben affaire rek mom day drafté day liggé parce que man liggé nañ ensemble ci lu bëri dañuy ki rek on se met quelque part on travaille on produit quoi. Donc Djomaye c'est quelqu'un de c'est un, un, travailleur mais c'est quelqu'un de très très très sérieux quoi. Mmh. Et puis euh, gars yi <laughs> gars ñu ne motax tax mu chamboulé mu ah loolu la parce que sondage da ko de. non sondage non seulement da ko da ko dañ ko dañ ko dafa plébiscité da am plébiscite waaw dafa am plébiscite mais aussi nit yi dañuy gis Diomaye xam nga Diomaye rek ak toom bobu ak ni muy waxé non. ak comment il est ferme quand il le faut ñu bëri dañ ko ragal man dem am naa ay ñoo xam ne may liggéey ak ñoom après non non ñun on préfère Ousmane Sonko gagné nguur gi que Diomaye di ko gagné parce que Diomaye bi dafa sévère affaire yooyu mais non il est pas sévère il est juste sérieux il est correct nit ku sérieux la quoi nekkul mhm. nit bu non non il est sérieux il est très bien mhm. Diomaye il est très très très bien te ma wax la benn affaire li Ousmane Sonko wax xam nga mënoon na ko wax en interne mais ku taxaw publiquement ne ñun duñu ñu ciy fayonte ñun duñu ñu ciy def lu bon yooyu jëru woon moo tax jëru woon yëpp ñu fiy egg parce que ñun li ñu intéressé mooy Sénégal et comme je t'ai dit Pape 60 ans de combat patriotique de lutte patriotique kenn du altéré nit bo xamante ne ñu ko nit bo xamante c'est vrai que président là, mais président là bo xamante def na diram wara dem ñuy am possibilité troquer lool yépp pour bay président mu def li ko neex c'est-à-dire que laaj na vraiment taxaway avec beaucoup de passe-passe waaw passe-passe pour mun a. c'est important merci beaucoup Fadilou. waaw hein. ah, jërëjëf kontaan naa trop ñu ngi ñu ngi kontaanee remercier aussi sa taxawaay vraiment. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, saisir l'occasion bi pour déjà jaayal daba. Mm-hmm. Famou DJ parce que man bi ma génnee rek gis naa sa live. ngay ciy wax li nga xamante ne defal nga ko ak waxtaan comme moi. absolument mais sa taxawaay aussi. yow ak chroniqueur yu bëri ak journaliste yu bëri. ci détenu politique ñun bu ñu ñàkkaan rëbës. dañuy toog leen déglu. c'est-à-dire que cette émission yi ngeen def nii yëpp am ay possibilité déglu ko bu ñu nekkee foofu noonu. donc ñu leen si remercier bu baax a baax taxawaay bi ngeen di am mom la sapeur yi am sen caserne yi mom la hmm. militaire am ci frontière mais ñun aussi ci administration mom lañ am mais yéen journaliste aussi sen corporation mom ngeen am hmm. ñu lay massawu ci lepp li nga dund aussi hmm. di le gërem vraiment taxawaay bi yéen ak sa mbokk yi nga xamanteni ni yéen sekk mbir mi de remercier bu baax a baax a ci merci beaucoup jërëjëf jërëjëf Fadilou euh, ku nekk dafa am mission boy dox ci réew donc il faut l'assumer euh, avec euh, courage et dignité de sant di gërem ñep di leen dig dajé inshallah ci benen jataay sen benn émission autour du micro jërë ngeen jëf